Y'all want me to do a song for you kids? Alright, alright, let's go. I listen to Ghanaian Times radio show. festival, Festival.

julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa salaam di nuyu kilifa yi nekk ci diaspora bi di nuyu bépp àddina bi ku ci ne di ñëw ci waxtaani demb ak gis-gisi démb mu di cosaan ak aada bu dëppoo balaa ñoo dugg ci biir waxtaan wi dinañu nuyu sunu baay Ibrahima Ba Mamakoto mu ngi ci réewi Amérique di nuyu ay kilifa yu fa nekk yu fa yàgg tey ñu ngi ci Banjul fii ci fi nga xam ne fi la bi nekk bu ndaw bi ak building yi nga xam ne. ñoo fi nekkoon démb booba Independence Drive lañ koy ooye ba jamono toll ci jamono ki nga xam ne moo ko indi ci tur Independence Drive the former president Sir Dawda Kairaba Jawara waaye balaa boobu tubaab yaa ngi ko tuddee woon Clifton Road Clifton Road nag moom nga ame woon mu dem ba jàll bridge bi dem ba dugg Old Cape Road xam nga tubaab nu ko neex laa defe waaye jamono bii nga xamee ne Sir Dawda Kairaba Jawara ñëw na tur wi wecceeku ñu tuddee ko Independence Drive Independence fekkoon na fi ay building yu mag yoo xam ne yu cosaan lañ woon yoo xam ne yi ay kilifa ci dëkkoon ba tey suñu ci dëkkutit seeni doomang ci dëkk boo seetee ci boor bi dem nii kër yi yëpp booba jamono ñu ngi fi balaa Independence Drive tey nag ñu ñëw taxaw fii booba ton table bi rëyut lu ndaw la woon jamono booba tubaab bi bi ñu rulee jamono booba bi nga gisee ne nguur gi dugg ci independent ci la yu bari wecceeku wax leen nag ne tey ñu ngi won démb ci cosaan ak aada Banjul dëkki cosaan le Banjul dëkk aada la Banjul dëkk la dëkk boo xam ne bi ñëpp xam nañ ne du dëkk dox daje. 200 nangami yees Banjul dafa am ñu ko sanc bi nga gisee Manding Empire di toj Manding Empire boobu di jógee Mali di egsi fii ci jaar-jaari tey fi mag ñi amee woon daje ak fi mag ñi daan toog. fii nga gisee woon ñu kuloo ñii jàll dem dar ñii dem Mauritanie ñii des fii am na ñu ñëwaat nag dinañ leen wan nag li nga xam ne tey moom lañ leen bëgg a wan ci Banjul démba ak cosaani démba ci biir Banjul ngeen xam ne fii dëkk la dëkk bu rafet dëkk la dëkk boo xam ne dëkk bu am mag ñu baax la welcome ñu kaar yoon nag waaw euh, ñu ngi nag euh, néeg yi nga gis nii yëpp néeg yu njëkk yi lañ woon euh, ay place yoo xam ne place yi cosaan lañ ca jamono tubaab bi ba tey ñu ngi fi jamono tubaab boobu nag bari na ay néeg yoo xam ne ñoo fi nekkoon fii ci tefes bari na it ay dëkkuwaay yoo xam ne dëkkuwaay yoo xam ne akku yi ci seen bopp bari woon nañ fi dëkkuwaay nga xam ne amoon na ay boor yu am solo ci biir réew mi euh, daanaka ni ma leen ko mun a waxee rek mooy tey euh, soo gëstoo di dem ci jamono nga taxaw ni kër yi ma jàkkaar lool bokk ci kër cosaan yi nekkoon ci Gambia kër gi di kër Parolins bokkoon na ci kër yi nga xam ne këri cosaan yi lañ woon paa boobu nag di maamin naana amoon na history fii kilifa yu bari yoo xam ne tey ñii dee ñii dund nañ fii lañ daan ñëw di nandal xale yi garabi saan bi ñoo waxee wild bu ñu ñëwaan fii samedi lañ daan ñëw xale yëpp di nandalu si paa baa ngi amee woon nag benn jaaseem walla benn paakaam boobu dañ laa tiital sax su ko defee yow ci sa boppa ah, eh, nga tiit ba nandalu ñu di ko ooye wild draft nandal boobu mag xalal ndaw ñëpp jaal nañ ci Pa Lawrence benn paay aku la woon bu am science bu am xel koo xam ne xamoon na ne tey Gambie dina toll fii li ma leen nii yëpp gis ngeen ko building yu màgget di ngoog ñu ngi nii building yi cosaan la waaye fii nag ñu jël ñu ngi ko daan ooyee Clifton Road fii ci jamono tubaab bi fii lañ daan wax kliftin Road tàllal bi léegi nag jamono former président Sir Dawda Kairaba Jawara ñu tuddee ko Independence Drive Independence Drive nag moo continuer ba dem ci fi nga xam ne foofu la aj bi nekk tey dinañ fa egga jàkkaarloo ak fi ñu daan wax Bameli Brown Bameli Brown bu ñu eggee foofu dinañ explain naka la foofu nekkee woon ci jamono yi ci dund foofu. amoon na place boo xam ne fi lañ daan julee korite fa lañ daan jullee tobaski waaye fii tey mooy Independence Drive Independence Drive gi fi la jumaa ju mag ju njëkk ji nekkoon Independence Drive fii ci koof bi foofa la eh, mochuwaar bi nekkoon Independence Drive fii foofa la suñu rajo bi njëkk a nekka kon nag li ñoo def mooy ñu continuer. Euh, mu mel ni fii ñu taxaw tey ñu ngi ko daan wax Makati Square Mr Makati lañ name after koñ bi euh, baye bi ñu dem nag ci jamono tur woon fii mu ngi woon fi ci jamono sax Sir Dawda Kairaba Jawara waaye ñu dem ba tollu nag ci foo xam ne 1994. bi nga ne xamee ne former président di Alhaji Yaya Jammeh jël na nguur gi start change tur yooyu moo tuddee fii July 22nd su ma fàttale ko building yi nga gis ni yëpp fekkoon na ko fi def ko rénovate waaye fii ay kilifa daan nañ fi fo daan nañ fi ñëw di def game yu interesting pour mag mu di ku mel ni ñoom Alhaji Obi Konaté ku mel ni ñoom Pathiam ñoom Aliou Mbodj ñoom euh, ndem si yàlla si Paxaari Cissé ñoom Moustapha Ngom ak ñu bëree bëri ci ndongo Banjul yi ñu bëri daan nañ fi ñëw di fi cricket waaye boo demee nag ba fi nga xam ne moom lañoo ñoo ko quadrangle ci biir kër gi amoon na bëréwookaay ñu bëriŋoo am na fu ñu daan bëree loolu jamono la waaye fii. Eh, McCarthy Square la tuddoon léegi xam nga ne changes amaat na mu ngi mel ni golo dellu na ci booy booy wan la rek ne fii mooy cosaan bi fii lu nekk am na fi fi lañ daan maajee Empire Day ba ñu am independent ñu di fi maaj independent celebration fii lañu ko daan defee ci jamono bi nga xam ne jamono jawara la jamono yaay jaame ñëw ñu dexi maaj boobu yóbbu ko stadium Bakau na nit ñi xejuñ fi waaye gis naa président bi fi am ki nga xam ne moo fi nekk def na fii li ñoo ooyee independence celebration mu di président Adama Barrow lu nekk fu cosaanam nekk dañ ko fa war a bàyyi buñ ko dexee ndax cosaan dafa doon loo xam ne boo ko buggee nettali da ko faa bàyyi su gune ñëwee mun a gis tamacheer ba mun a nettali lan mooy demb xam ko moom itam pour ëllëgi gune yi waaye fii cosaanookaay la fii place la place boo xam ne àddina yëpp xam nañ ne lu nekk xew na fi ci jàmm ak teraanga kon dinañ jàll tuuti rek dem fii du July 22 léegi Makati Square lañ ko tuddee. mu di paak bi ci paagi Banjul mbokk yi ñu continuer lu nécessaire la pour Gambien ni xam seen bopp xam seen dëkkuwaay xam seen cosaan eh, bu ñu fàttale ko de former mayor in Banjul Abdoulaye Ba amoon na jamono boo xam ne célébré na ci Gambia ak waa Gambia bi nga xamee ne Gambia boobu duñu ko wax Gambia Batos lañ ko doon wax cooj baa ngi nii waaye fii mooy bunti kër gi nga xam mooy bunti kër gi nga daan jaar dugg State House fii nag ci cooji cosaan yi la fii fekk na fi tubaab bi fekk na fi li nga xam ne moom la fi buur yi daan ñëw di ñëw cooj cosaan gu amoon solo ci biir Banjul euh, daan nañ fi itam def mees ak ay jànga tey dafa nécessaire pour ñu fàttali nit ñi lan mooy cosaani Banjul alhamdulillah ñëw nga ba gis benn kër goo xam ne dafa am ay flower flower yi nga gis nii fii benn kër docteur la woon bi nga xamee ne gaañu na wala gaañoogut ci la jaay kër gi docteur Mané muy kër gi mu gi nag ñu ne yaay jaame ko jënda ah, waaw lii moom benn la ci Banjul fii mooy National Arts and Culture National Arts and Culture mu ngi nii benn la ci place bi nga xam ne fi lañ wax ne fi la culture bi nekk fi cosaan ak yëpp nekk dina jàll nag dugg ci koñ bi nga xam ne moom lañu ñu oyee Sam Diak ba pare génnaat euh, Sam Diak ke fi njëkk ñu ngi ko ooyee góor gi Jarga Njaay mu Ibrahima Njaay mu Abdoulaye Njaay Jarga mu Ñoxuba Njaay fii li tax di ko wax Sam tudd doon saam jaag bu njëkk ba bu njëkk ba ñu ngi daan wax goxi jarga njaay jarga njaay moomu nag moo góor gi mam beri soofi ñoom ñoo ñëw bi ñu ñëwee ñu dal fii ci bu gàtt bi bu gàtt bi xam naa bi seet lan lañuy doon fii mooy Gloucester Street lan lañuy doon ak lan la def ci live waaw fii nag mooy kër Jarga Ndiaye fii mooy kër Jarga Ndiaye mu Abdoulaye Ndiaye Jarga mu ñu xuba Jarga Ndiaye moomu Ibrahima Ndiaye la Jarga Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Jarga Jarga Ndiaye moomu mooy maam. ci ki nga xam ne moo di Pio Ndiaye njaboot gu bari ci njaayeen fii nag moom la gaa yi jël nag tuddee ko Saam Jaak euh, mu ngi mel ni nag ñu ngi dugg si ndeysaan ci été mag di këri cosaan di kër goo xam ne fii léppay démbi Gambie fii la ci kër gi léppay dembi Gambie ci koñ bii la. ndax buñu musana am xawaare tante jang ak lu feeling a doon fi lañ ko defee ci sam jaag waye ma ngi leen di wax ne bismillahi rahim ci kër jarga njaay mu abdoulaye njaay jarga mu ñuxu ba njaay mu kuli njàmbu sanga bi di mag mu bax mi andona gor gi mamberi sofi mu xarabram koddu njaay mandu ngaan ma des kawon demba njaay mambéri fambooj ñu ne gor gi ni la dëkkee suma mam ni la waye nak jàkk ji nga xam ne jii jàkk ji la seexu Omar Foutiou Taal rëddoon ci kër gi julli fi tey sët bu baax mu ngi ko dekkali sët bu baax ku dégg cosaani ndey ku dégg cosaani baay waay tey doom di sët di lépp ne dina delloosi jarga jaay ca yoonam dina delloosi Mame Mbéry Sofi ce yoonam dina delloo si Pio njaay ci yoonam dina delloo si Ibrahima njaay ñii ñëpp Abdoulaye njaay ñii ñëpp ci cosaan gi la. lii nag Cheikh fuuti Fouti yi julli na fi bari na ay gox yi mu julli ci réew mi su ko defee dinañ leen wan yu bari yoo xam ne e, Banjul dafa doon dëkk cosaan. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ci ëttewu mag tey. di kër gu rëy ci digg Banjul di Gambia di kër goo xam ne kër gu teral askani doom aadama ci réew mi la kër gi la miskin yi daan daje kër gi mooy woon fajukaayu soxla yi tey ñu ñëw fekk fi suñu mag suñu lépp yal na ko fi yàlla bàyyi mu di Ibrahima Diop. Ibrahima Diop nag àdduna bi yëpp amul fu fi jaarul ba tey moo des ci kër gi nga xam ne góor gi Modou Mbaye Boos Omar ak Ñaywa mooy ki nga xam ne fii moo otu kër gi ba tey ñiy toog ñu am nag lu ñu laajte si tuuti rek Ibrahima wax nañ ñu ne Cheikh Omar Foutiyou Tall ko di Adama Aysata Mokhtar Sira Ali jaal na fii ci kër gi ñu bëgg laa déglu nag euh, yaa ñu féetoo mag nga wax ñu tuuti. waaw comme li ma ci jot a taataan ci suñu mam xam nga moom euh, daan na yàlla may na ko loo xam ne daan na ñu ci place ba leen te kenn du ko xam waaw moom nag ponkal la woon parce woon na ponkal sax waaye mu am benn guddi timis goo xam ne dafa ñëw bi mu ñëwee ñun xamuñ ko. mu ñew ci kër gi nuyo fekk fa suma maam Modou mbay dama li ga ak suma ñom ñay Keba mbay ci jëmono ñu gis non li ak suma nijaay Babacar Mbaye yaa ma liga ñom ñu nuyu wante ñom way xam nga ñaaral loy pe attention ci façon nit ñooñu te lu externe la nga mëna xam ne ki ki li kan anytime understand nga léegi mu eh, nuyoo c'est eh, suma maam Ami ci escalier bi fi mu ne ko ah, soxna si man day gan laa woon ci liko bi dama bëggoon nag mooy yóbbu ci eh, jumaa ji ndax mi am fu ma dal xam nga mag yi léegi ba ñoom dañ am teranga ñu ne ko a ah, bay bàyyi mun nañ laa xoolal fii rek mun nañ laa xoolal ci kër gi mu ne baax na baax na nañ ma yóbbu ci jumaa ji rek mu tombee nag Pambay eh, ah, foog yaakaar naa maamam ci boppam. moo ko waxoon ne ko yóbbu ko ci jumaa ji ndax suma maam bu góor kenn ci ñoom yóbbu ko ci jumaa ji. mu ne ko baax xam nga jumaa ji tëdd mën ne ko waaw léegi ñu ànda bi ñu àndee léegi ba si jumaa ji ñun yëpp kenn yëgul de bee ca mu ne ko ëllëg nga jël si ma fii léegi mu ne ko waaw ëllëg ndax gannaaw ëllëg léegi pa ca sa maire ko mane loo dem seeti góor gi waaw ci ma ko déggee léegi pa boo boppam àndaa góor gi enu seen alluwayu ak der yi ci lumas noonu dem ba si jumaa ji mu ne ko xam nga fii mën ne ko mu ne ko kon nga jël si waat ma ëllëg ceeli sa ndax pa dafa dafa am na ko ko fàttali daal na ko góor ga woon te kii mën na ko baax na bu ñu demee foofu timis timis de xam nga boobu am na feere bu ñëw eh, LC4 moo fi nekkoon LC4 moo fi nekkoon Landing Carafe thank you very much moo ko jël si moo nekkoon ci terminal bi kon honnêtement li diggante fi lay baara léegi bi ñëwee fekk nag eh, feere bi dem mu ne ko ah ah lii daal amul de mu ne ko waaye baax na waaye baax na xaaral ma toog fii xaaral yàlla léegi mu ne pa loo soxla <coughs> xam xam naa li fi xale la kaabu li mu ko wax sax mu ne ko la nga bëgg a ñaanal la mu na ko waaw mu lifin loxoom yi nii na ko gumal pa dal li ñaan ba mu ne li gisul dara rek mu foofu si teg tànk waaw ñëw na commencé expliquer ah, pa bi ne ñu li yàqu li ko góor gi góor gi fi góor gi moo fi jaroon. yaa ma dégg léegi ñu ne pour am fi moo kii euh, place nga xam ne ñëwoon na fa muy fii. Ah, nañ ko tabax noonu waaw nañ ko tabax waaw. léegi nañ ko tabax daal di fa xaamee kay bi mag yi dugal nag dañ ci am dañ dañ ko respecté woon trop yaa ma dégg. Mhm. waaye after lu waaye neex def fii fii nga jaar fii xam nga. ani lañ ko yaax way place yalla kel mom munu ko yaax waaw kel place yalla euh, mom fi munu ko yaax léegi ci dégg na tam bi mo joge ko nagataati bi mo joge ko bara tam gisuñ ko ci fer gis ko ci fer dafa ñew ñaan ku ñu indi ñu ko ah way bu ligi ben passenger ah nangam nangam nangam xam nga suñu mbokk yooyu puubu mm-hmm. léegi léegi paa bi ñu ew ci suba si ci election ah, ana gol gi nekkon fi ni ci suba ñu yubal ko gisuñ ko mag ñi nga xam ne ñoom lañ daan xalaat ñu ne ah kooku dem na kooku liggéey nañu kooku xamuñ kan la waaye dem na waaw afta lañ ko xam nag diggante boobu nag man ci kii waaw diggante boobu waaw. yow wax nga ñu lu doy ci history yi. waaw Diop jërëjëfati. benn tey sax doguma la. am na mag moom sa dey ci juma ji position bi paa bi daan toog ah. Mhm. position bu jafe xam la ne bu naxaree xam la. Mhm. bu yomb xam la waaw. Euh, ñu ne ma soo amatee sa ajo ci kàttanu yàlla mel na ko mu ne ma ñëwal ci diggante ñaari pilas yi la nga di ko ñaan soo soo taxul suma bëri sa même wala place bi nga di fa ñaan sa aajo ma seetlu ko tamit xam nga mag dafaa seetlu. waaw léegi li ma li fa daal ñaan yëpp gis naa ne daal daf daan antu ci kàttanu yàlla. Mhm. waaw woo foofu tam xam naa fa waaw. Ah, Koto ñu ngi laa sant di la gërëm te di la ñaanal fan wu gudd kër Mbaye nangu kër moo du mbay boos. moom rek ñay wa di góor gu mag gi nga daan xam ne moo daan teral miskin yi di góor gi nga xam ne lu nekk la def ci réewi Gambie ci lu baax. kon yow mi des ci kër gi tey suqali nga góor gi delloo delloowaan nga góor gi ci tëddaayam bu rafet ba yal na la yàlla may jàmm may la kàttan te yàggal la ci kër nu ngi leen di nuyu gannaaw bu ñu sante suñu borom tabaraka wa julli ci sanga bu tedd bi di Seydina Muhammad ibnu Abdallah teg suñ tànk fii nga xam ne mën nañ koo boole ci ëtt yi ñu daan wax ARF waaye ñu gën koo waxtaane BCC mu di foo xam ne cosaan la àddina di dox ca jamono tubaab ba ba àddina di dox ci jamono tubaab bi ñu daan ko wax Clifton Road Clifton Road googu nag nga daan dégg tubaab yi ñoo ñu ko tegoon waaye lañu ñu ca tegoon yëpp ñuy ñëw di da ba ci at bi nga xam ne dégg nañu ne independence am na ci Gambie in 1965 ñu tuddee ko nag turu màgg Independence Drive ñëpp newuñu fi. waaye doom yi ñëpp ñi fi newut ñu ngi fi te ñu ñu bàyyi xam-xam lañ maa ñëw nag ci office CEO de Moustapha Bathily Moustapha Bathily mu Abdoulaye Bathily mu Samba li mu Kumba Tunkara mu Ousmane Jamega Diané mi nga xam ne moo Cheikh Mouhamed Lamine Dramé ñooy ñëw waaye seen ñëw ba it dañ jiitlante bàyyam nekk ki nga xam ne moo njëkk a nekk force aviation bi ci réewi Gambia moo fi njëkk a yóbbu groupe ñu dem ziyaara ji bayti laayil araam nga jàll nag ci loolu ñëw toog ak njaayeen boo xam ne ci kër jarga njaay la dëkk mu Abdoulaye Njaay kër mu ñuxu ba njaay mu kuli njàmb banjul a ngi banjul yaa ngi dama ne banjul a ngi banjul yaa ngi maam nag yu ma laajte tuuti rek njëkk ndax euh, sio wala balaa maa ñëw ci yow ma njëkk a ñëw ci Mr Ndiaye dama bëgg nga xelmatal ma ñaata meew ngeen am balaa meew bi di toog fii ku ci nekk turam ak santaam Ndiaye ñu ngi laa déglu. waaw asalaamaaleykum El Hadj Abdoulaye euh, jotaay bi euh, jotaay bu taaru la te mbégte la pour ñu toog di waxtaanee mbiri bànjul ndax ñun bànjul duñ ci wàll yaan ci sax sax yi lañ bokk nam li nga laccé kum niñ ko ñuko taari joxe am nga ayam ga ba joxumpa muy benn am nga bio jeng muy babukar am nga meyo fasala jeng am nga meyo samba fall am nga meyo mam sey njay am nga mr monde am nga meyo Mr. babacar foun am nga eh, mr keba funrada am nga meyo uh, kelefa samba am nga meyo keba conte am nga meyo abdoulaye ballit currently yaa ngi am meyo rugilo danaka dafa mel ni ñi ñoo toog jota toogagum ci jalbi bi bi taarix doore léegi wa bio haka yo waxnaa bio semega jani waaw bio jeng den bio Séméga Diané waaw gannaaw kii naka lañ ko waxee Mr am Gaba humpa bio semega jani la woon niñ toflante waaw. waaye ndax bi ñoo eno Banjul booba jamono yi doon meo Clifton Road la woon wala independent Drive. waaw am nañu si seen jamono méngoo wala tombeek Clifton am na ñoo xam ne seen jamono mu ngi méngoo e Independence Drive ndalulu soppali la. bi ci estuwaar yi laata ñuy moom suñ boppa la mooy woon Clifton ba biñ moomee suñ boppa tuuti gannaaw si si lañ doog a ci Independence Drive ndax Clifton moom fekkee na ñaar yëpp fekkee na jamono tubaab fekkee na jamono bi ñu jëlee suñ boppa den gannaaw si nag si lañ wecci tuddee ko Independence Drive waaw su mel ni am na meeyoo yoo xam ne ñoom yàlla tombeloon na leen bële ñii tombe bii. xëj na nga xam ko Clifton. Euh, gofano la woon wala jabari gofano la woon wala lan la woon ci jamono mook euh, Sam Diak yëpp <laughs> laa bugg laaj nga wax ma ñooñu lan lañ woon. <laughs> duma duma duma naka lañ koy historien <laughs> waaye nag ñu ci foog naa si liñ jot a nafar ñooñu ay gofano yu jaaroon ci jamono lañ waaw fii ci Banjul te bàyyi woon fii seeni tur moo tax foog naa daanaka tubaab bi tur yu bari yoo xam ne daf ko dàkkantaloo ay ñi nga xam ne ñu fi jaaroon lañ. wala ay borom nomba tànk yo xamne ligéelon nañ nguri tubab ñu bayi won fi tour yoy nonu gannaaw nak bi jamono doxee ñu jël nak ñu di soppi tour yoy diko délo delloowaat suñ nit ñi di len délo ñukal ci jamono dafa melni dal danaka boom len délo wat sa boy boy ba. wa way len la la la balañ ko tuddee Sam Diak naka la njëkkoon na tuddee Njaay Jarga. Sam Diak nak dafa melni ñun tour biñ jot bi jot tataan mu ne suñ nopp yi moy tata gi lañ ko daan wooyee. ku mom moom tata gi. tata gi borom yuup yi suñ maam moom lañ naan dégg ci wax jooju noonu ndax tata dafa am lu mu tekki ci olof ndax tata mooy place bi nga xam ne falak jàmbaar yi fala borom waar ñi fala buxa borom buxaaba yi fala borom xam-xam ñi di toog di nas ay pexe di am ay tiralin wala ay doxalin yu ñu bugg a doxalee soo mu newoon foo xam ne cuune wala coomo du fa dugga moom mooy mandarga tata ndax tata daanaka fa la ñoo wàjjalee xeex te UP parti politique la woon. xeex du woon xeex ci jël ay et wala loxo di dóor waaye xeex ci xam-xam ak xeex ci tëralin wala doxalin lu moo sanc tata gi foog naa. ñoo ngi ko daan ooyee tata Jarga Njaay mu Ibrahima Njaay mu Abdoulaye Njaay Jarga mu Ñuxuba Njaay mu Kuli Njàmbo mu ànd it ak góor gi ma mbëri soofi mu xarabram koddu Njaay maandu ngaan ma des kawoon Demba Njaay ma mbëri Fambooj waaye ñuy jàll nag ci ki nga xam ne Ousmane Séméga Diané mooy maamam ak Kumba Tunkara góor gi Sàmb ba Thielé mu nekk siwo e ci fii ci BCC waaye balaa moo nekk siwo e dafa am ci kër gi yu bari yuñ fi xelmat yi xaw ma ndax bàyyi na xel ci history boobu gis nañ fi teen Mr Bathie lu indi teen bi balaa xare bi wala ci biir xare jërëjëf El tontu bi waaye si si bi. ay unfortunately nag uh, su ma la wee ne xam naa lu bari si mbir mi na tamit uh, na ci teen bi naa yaxa waxtaan bi parce que soo gisee ngay wër di laajte yi history dafa important trop parce que dañ dee wax ne soo xamut démba doo xam tey soo xamut démba tey doo mun a xam ëllëg li nga séntu waaye foog naa ne nag lii bokk na ci euh, colonial legacy Gambia bi ak Banjul City Council in particular doo waxtu boobu nag fanaa ñu ko daan ooyee euh, BTC Batos Town Council waaye defe ne li lii tamit man tamit na ma dimbali pour su lii weesoo ñu jéem a def suñu kéemtalaay kàttan waxtaan a mag yi li nga xam ne am nañ idea about BCC especially time tubaab bi because ay Clifton Road yi ngeen a wax ni yëpp ay teeni fi nekk ay fi noonu yàlla xam na ñun time boobu noonu goment sa ñu ñoo ne ci ko aduna kàddu gi rafet na teen bi ci jamono tubaab yi am na kilifa gu rëy gu ma wax ne boobu jamono mënuñoo naan ndox mu weex mi waaye mun nañoo gas teen fii ci Banjul City Council boobu amul fenn jamono tubaab bi robinet yu bariwuñ nga amoon teen fii ci Banjul City Council am ko ci Arts and Culture ba pare amoon nga ko ci beneen kër aku gu nekk Oxford wala Piñaay la wala I don't know Long Street mu nekkoon teen boo xam ne daan naa dégg mujjee gi sax ñuy wax ne soo amul doom buñ dafa sangee nga am doom boo xamee ne danga nga bañ a wasin bañ wasin nag ci olof nañ ma déglu bu baax mooy mat gu tar nga dem fa sangu du jaas mukk balaa bor di seet yàlla may la doom boobu ba tey mu ngi fa ndax joolaa yi dañ ko àkki mu nag foofa ñoom ñu ngi ciy sanga ba tey eh, nga dem nag Dingare Boy Pourdaas wala balaa Dingare Boy Pourdaas Dobston Street kër Cheikh Omar fay history yu bari ñu ngi foofu Dingare Boy Pourdaas nag ah, foofu mooy woon lampi karasin yii fofu lañ daan wékkal lampi karasin yi amoon na benn góor joolaa la o aku bu màgget la wala dal ñoo daan fompa lamp yi daan leen fa wékk muy dingare boy pour daas li nga wax nag yëpp tey Mr Bachelet nice na trop fii nga nekk euh, sio waaye Gambia su fekkee ne nit mu ngi waxal dëggam suñ na batoos ba tey moo doon two hundred nangami years mu ngay ñëw ba ci biir développement boo xam ne alhamdulilahi rabil alamin waaye man leen rek laa bëggoon su ko defee ñu élaborer ci tuuti mooy naka lañ defee ñu ñu juddoo Banjul kenn ku nekk bi nga ñëw danga nga amoon xarit boo àndal waaye xarit bi lokki wut ndax moom doom ji dafa juddu alhamdulilah bi alamin moom ñu ruus ko suul ko muy àndaale li olof di wax àndaale kër giñ suul sa ju mbax nga xëy benn suba yéen ñu bari ngeen bokk booloo ne dañoo jaay suñ kër baay wala suñ kër suñ kër yaay luy sa advice foofu. waaw léegi nag moom fu mu nekk nii mun naa wax léegi nag. parce que li nga maa wax li nga maa laaj nii léegi ni ma naxaree góoma daf ko dee naxaree keneen. diw bi léegi daf ma dee naxari lool lool lool lool parce que nit ki ñu ne amuloo feneen fudut sa dëkkuwaay ak fi nga juddoo surtout. Banjul suñu history goo kenn dina bañ a wéji kenn na wéji ne is rich history du du du du du du bu mag place bu mag ba tax na ñu am façon yi values yoo xam ne ama lañ da wax ne waa Banjul du si xeet wala si diine yéen suñ yéen ñi ñu féete mag li ma xam ngeen ko man mii wax ni man Salawoulé la waaye tey soo ma ma léegi ñaar ñi dama laa ne Adi Banjul laa xam waa Adi Salawoulé bañu ma ko de waaye dama ko xamut muy akku bi muy manjaago bi muy joolaa bi ñu ñëpp waa Banjul lañ Banjul ni ko dee waa Banjul ni nga ko dee xamee mooy values yi tax ñu ne waa Banjul muy soppante jàppante dimbalante ak yu demee noonu waaye dañ toog a toog a toog jamono dem na dem na ba nga xam ne fu mu nekk nii léegi dañoo ooyee di social dynamics of the city dafa doo di change bu baax family tukki ñëw ñu bari ngi tukki ñu bari ngi dem si kombo gi ñi bàyyee léegi ñu bari ñu def seen kër yi luwaas wala mbokk yoo xam ne ñu ngi néew doole mënu ñëw taxu kombo ñu nekk fa loolu mooy social dynamics si Banjul lii xew na kenn mënu koo contrôle ñu ne doomi adama tukki comme doomi aadama la yàggee na fi comme fi doomi aadama nekkee ci àdduna si tukki dem dëkki feneen walla toxu waaw waaye suñ kere ñoo bàyyi tey pour ñu fay l'impôt problème la si dëkkansool bi parce que foo dëkkatu léegi kër famille yaa ngi kombo sa yoon nekkatu ji fa nga dëkki kombo foofu nga amal affaire la xew Banjul fii kippewuloo ko ba tey yëpp si social dynamics yi dañ cee boole some little bit of economic dynamism dañooy socio economic dynamics parce que léegi li waral léegi fi mu nekk nii léegi jaay gi bari mooy ñu bari dañ dem dëkki Congo wala dañ dem tukki ci biir loolu fu mu nekk nii léegi kër yi nekk taget kër yi ñëpp gisee ko léegi comme asset soo xam ne dañ ko war a jaay parce que ñu toogatuñ fii tukki nañ wala muuf nañ dem kombo soo fu mu nekk nii léegi duñ faale sax mbokk yi fa dëkk parce que ñaari tax ma ne économique dynamisme tuuti mooy ña toog ña toog it na mënuñoo toog. wala na tam bàññu leen ginaan ñu toog fii waaye ñu néew ci famille bi parce que majorité bi suñu agri ne ñoo jaay kër yi dinañ jaay kër yi suñ ko jaayee ñu jaay ko businessman kooku ñëw sampasto moto yi di ñëw ci magasin yi di di dem a ñëw di si marchandise di génne marchandise nit ñi ne de loolu waru fee am tere nañ ko jaay te dama dee bu ñu dee fàttaliku dara dëkk bii dafa amee li ñëw free market economic system nguur gi mooy maanaam recognize na ni individuals yi mun nañoo jóg moom dara loo xam ne dafa génnee koom-koom di ci fay seen tax di ci am kayit yu wér kooku léegi na ngaa mën a toogee forcé ko ne ko doo fi def sto because police amut su nekkoon ne police amoon na ne kuy sampa sto bu mu paase dobsin kon su ñoo jaay kër euh, Tabako du ma gaaw dem jëndi ko because xam naa ne su ma ko jëndee su ma ko defoo kër dëkkuwaay bu nit ñi di mun a luwee ma mun cee am nit ñi am fuñ dëkka kansul bi am ci tax stoo laa nekki te munuñ ci dara man aas waa Banjul li ñaan waa Banjul mooy kaa leen ñu def comme yeneen dëkk yi nga xam ne dañ am what you call a preservation policy ku bugg a génn suñ keneen Banjul yi ngir yàlla liis leen ko balaa ngeen koo jaay soo leen ko liisee kii liis ñëw développe ko luwe ko walla des na si seen waxtaan su nekkee ne famille dina leen jox floor ba tey ngeen am foo leen dëkk ci biir Banjul fi ngeen juddoo waaye liis bi yëpp lan la pour make sure ne jaayuñ kiri waaye alal yi maa ngi toog fii de waaye ni ma dee gis kër yi ñu leen dee jaayee may seen transfert bi dinaa dee am lu ma dee naxari comme waa Banjul. dinaa parce que dafa am min ne di next fifteen to twenty years ñun waa Banjul duñu moomati Banjul. ah man de loolu laa ko xaymee de moom. ten twenty years yi ñëw. bañu ñu mo mati bañu kon su boobaa na suñu nekk wa bañu da bañu njëriñ ñu amal parce que ñu ngi nekk ci tulo bo xamna ne mo mati ko mo man ma ngi ñaan kan su es bi ñu visa na ngeen ko waal ne len man de as waa Banjul li moy suma halat lo len ci halat su nekkee sen halat. méngoo na suma halat ñu nyu ñu watana ak wa bañu li ñu watana ak ñu watana bit ñu wana ak yi construction company ba ci ni buñ ko jaay su dee dañ ko liis ñu liis ko nit ñoo toj ko développe ko suñ set seti nañ sant ba ci li dina fi fekk ñu delloo waati leen seen kër. jërëjëf euh, li olof yi di wax ni suñeel duñ ko rëkk euh, maa ngi gis loo xam ne itam neexuma te lum laadi laadi su fekkee ne bii si si munuñ koo defar. ndax ñun ñu fi des tey waa Banjul tey doomi Banjul di magi Banjul mënuñ ko xelaat xayma nuñ ko rafetalee ba ku rombane ndeysaan bii dey mooy bàmmeel bu njëkk bi ci Banjul waaye seetal ni mu mel ndax yow di ko gisee ak ni ma ko gisee benn la. waaw ah, Alaaji Ablaye li nga li nga laal dafa mel ni moom la mag ñi daan wax sakya. sakya. Eh, sakya mooy mujjanteeli kiri doomu aadama ndax bakkeen ñu ne bu mos dunda rek dina mos dee te ñu ne ni yàlla bindee dee jiitu laata mu binda dunda kon fi nga xam ne mooy mujjanteeli dikkuwaay képp kuy mindaafoon rawatina doomu aadama rek daf koo bàyyi xel niñ fa yóbbu doomu aadama ba place bi ñu xaw ko rafetal taaral ko ba nga xam ne ñax du ko jàppa te place bi du ràppa it ndax loolu ormay ñi fa ñi ormal ñi fa tëdda la waaye sàggane ko ñun ñëpp suñ sàggante la rawatina ñun ñi nga xam ne ñu ngi oyee suñ boppa julit ndax buñ ne ay wa jàpp nañ bés kaay leen ñu dem xooli ñax yi nga xam ne ñoo nekk ci armeel ba li nga xam ne ñooy génn ci doomu aadama waroon naa mën a ëpp loolu nam am na xamne xam ñu def seen kem talay katan dañ ci gorgolu bu ba at mu ne dinañ juk jappalante ak bcc ñu di defara waye lolu loolu war na nekk ay itek bcc rek itek mboolem ko xamne julit la ndax ku sa te da fenn war nga jamono par jamono nga dem ziaré ci di ziaré wo so génnee bosam kenen génnee bosam danaka dafa melni kon jël liggéeykat kat diko fa tek sax danaka liggéeyam du bareti su ko defee xaalis ba nga xamne mu fay liggéeykat am amna fenen foko mëna dépasse mu jural ñu ngirign fokk na ne dina edda suma bopam man edda ñëpp ñun ñu war a bàyyiwaat loolu xel defaraat suñuy tooge toogaay xam ne am nañ sas sas bi mooy lan naka lañ war a mun a toogaatee ndax mag ñi li du leen daan dab waaye jamono ñun dafa dem ba lu bëri dañ ko sàggane ah da ngaa dem si bàmmeel sax léegi-léegi sa yaram dafa daw ndax dee bu amaan ci koñ daanaka commencé ko si fi dëj bi am ci jeexeteeli koñ bi doo dégg yëngatu ndax ñëpp ay xerewlu ngir tiitaang waaye léegi de dee dafa ñu ngay yakam rek nuñ la génnee bu ñoo sul sa xale yi léegi ñooy bëgg jitu mag ñi daanaka fa ñoo robé mag ñang ci téléphone yi ñi lee ngey texte ah kon xam nga doomu legi legi léegi wéccé ku na ci du ci jëm waaye ci ay jikko ndax amna mandar ga yo xam yoy yu ñu daan gis mag ñi la waaye léegi ñu bëri dañ ko baye mu dem ñu jël jamana nak diko diko di té war nañu war wat xel ne ndax fofu lañu mujjé té ñuy ñaan yalla moy mu yéx kon ma eda edda di fatali suma bopaté di fatali ku ne wareef la kenn ku ne naam bisis yi mu ngi béy waaram ci loolu waaye wareef la ñu nit ñun ñu béy ci suñu waar ndax lislaam am na lum ñu digal ci bàmmeel kon loolu mooy li ma dénk suma boppa di ko dénk jullit ñi ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel. lu am solo sëñ bi wax na ko fi la ñoo tëjee suñu waxtaan waaye balaa ñu ko tëj dinañ gërëm itam soldaar yi nga xam ne fu ñax am ci réew mi bay nañ ko ñooy dugg ci bàmmeel yi. ñooy dem ci yeneen i boor yu am yeneen tilim tilim di ko réglé dowul ne ñoom ñoo ko war a réglé soldaar dañ ne nga toog xaar bu musiba amee waaye musiba du musa am Gambia waaye ñoom génn nañ pour gën a bugg a tàngal seen yaram pour gën a bugg a jàmm di def lu mel noonu ah, kon bokk yi fii la ñu ñëwoon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di continuer di seeti bàmmeel yu njëkk yi eh, pour seet pexe yi ak foofa lan la woon ak naka la woon jërëjëf. mbokk yi gannaaw bu nu jóge ci siiw ñu ngi ñëw fii ci office yi député di Omar Jula Baba Touré man di Moro ki nga xam ne moom lañ toftal ci meew bi nga xam ne mooy di fees meew ci jigéen ci Banjul de Gambia mu di rugi lëw ñu gën koo xam ci rugi nenne bu Malick Lo bu Guèye Lo mu Lat Kumba Lo mu Jaam Moom Waali Lo first time in history nekk jigéen joo xam ne yàlla def na seetul ne bàyyam moo ne woon mayo bi waaye dafa ñëw gis Banjul ak doxinam mu bokk ci Banjul def ci Banjul Banjul jox ko bopp muy liggéey itam ci Banjul am al say ñaanuma kenn dara toppuma kenn waaye ku liggéey tey def lu baax ñu wax ko tey wax dëgg yàlla ni mu ñëwee ak ni mu liggéey rafet na te xalel la dañ ko war a jàppale ci bànjul gii ndax lii ndam la ci ñun waa Banjul ndam la ci Gambia eh, Omar man nag <clears throat> ñaari mbir bëgg naa ko waxtaan ak yéen ndax waxtaan ak waxtaaj du benn moo tax su ñuy wax naan démocratie wala démbangoroosi ak démocratie du benn waaye xam ne yéen nekku leen ci démbangoroosi da ngeen ñëw pour bokk ci développement te yàlla nga leen a dimbali euh, two things laa la bëgg laaj e, Banjul gi nga xam ne moom rek ngeen am ba saaro saaro ba port ba gis naa certain things yoo xam ne mu ngay dox dëgg la loi la nag oo du am na ñu bari ñoo xam ne këri cosaan lañ am ñoo xam ne fi ñu dëkka maam ya ko moomoon dem ba ci bàyyi waaye dem na ba léegi ñun foog naa ñun yéen yéen a ñoo tane ji jamono ndax yéen xam ngeen ne bi ngeen duggee ci développement rafet na lan nga mun a wax oo lan nga gis luy dimbalee doom aadama bi suñ këri cosaan yi Family bu jog rek jaay ndax BCC amu ci doole wala mën nañu intervene be ku jaay xëy bo amé magasin ci kaw di ko mëna def tax muñ dëkk. yow alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa Banjul di nuyu wa Gambia di nuyu adina bi yëpp eh, ñuy seetaan programme bi bu suñ bàyyi di def ni alaaji Efri Mbay ñu yàgg koo xam si li moo yëngatu si yëfi cosaan ak aada ak luy yóbbu réew mi da yàlla def tey ñu nit ñu ama moom jotaay tey ñu ngi rafet loolu bu baax di la nuyu Alaaji Efri Mbay li nga wax rafet na trop ak introduction bi fi nga dooree suma meyo macha allah rafetlu nañ ko trop ba mu ñëw fii tey ci taarix taarix a ngeen nettali loolu tey tamit mooy jigéen bu njëkk a nekk meyo Banjul fii jërëjëf si loolu. laajte nga laajte bu am solo boo xam ne ñun yëpp daf ñu affect mooy kiri cosaan yi waa Banjul yi ni Banjul woon liñ nekk a nekk xaleel Banjul ay këri cosaana fi nekkoon ay këri mbooloo jamono di dox këri tasaa nit yi tasaaroo kon ni nga ko waxe sa wax développement am ku nekk di amal sa bopp kër cosaan yi ñu dem ba ñu ñeneen ñoo bugg ko di ko ñu ko jaay loolu tas këri cosaan yi suñ ko jaayee luñ ko dee defee duñu dee neex mooy ne dafa mujjee nekka magasin mu nekkoon kër cosaan bu mag amoon affaire yu bari yi si nekkoon lu waa lim si mun a may mooy ñun nuñ ko jaayee ak nuñ ko defee ñun amuñ si yon torop nyom naka lañ ko defe ñun liñ ci mënoon mooy ñoom ñu dem ba bëgg koo jaay ñu ko ci nyom wala nyom suñ ko jaayee kuñ ko jaay ñu ne ko ni lañ bugga nga sampee ko ñun loolu doole lañ am mooy fo la business si di nyue foofu la local government bi di nyue moy physical planning di la wax nii lañ koo bi ko dafa am residential areas am commercial areas so jëlee eh, koñ bu mel ni jëm Sénégal fi ma jógee jël suñ kër cosaan sampa ko store sampulo résidence si kaw di rey jëm Sénégal jëm Sénégal lay gën a mun a jox exemple especially Crabaleen Ward di Crabaleen school ñun xam nañ fa opposite Crabaleen school bi yëpp ay kër la woon bu Alaaji Modou Moussa Ndiaye moomo waaye léegi soo demee cra eh, soo demee box ba eh, London Corner kër yi bareetuñ fa léegi garage si Matar Ba Fall baa fa des ak yeneen yi waaye fi daan wax arène Doudou Mbaye yëpp stoo la léegi ay kër jàmbur lañu woon number one ak number two yëpp kër jàmbur lañ woon ay njaboot yu bari dëkkoon fa ñu bari jaaroon fa waaye léegi def nañ ko stoo ñun si suñu mbébét si li ñoo waxtaanee ñu ni neen mooy si council level fii mooy ne bañuñ kenn ku jënd kër gi waaw ko am xaalis mun ngaa jënd kër waaye soo jëndee kër pour loo xam ne Banjul dina mun a dekki. su nit yi dëkkuñ ci dëkk bi rek dafa nekk ghost town store rek loolu taxu ñoo jóg bu nañoo dañoo teg luwaa yoo xam ne am na dëkkuwaay yoo xam ne soo ko jëndee si yenn koñ da def dëkkuwaay si kaw su fekkee def nga store si suuf loolu luwaa la boo xam ne ñun mun nañ koo mbébét wax ko central government bi mu nekk luwaa bu ñoo taxawal pour Banjul si gàttal daal lii laa la amangum waaye pour nit ki moo jaay kiram ak ku koo jaay ak ku koo jënd doole boobu amuñ ko ak ñaata la ko jaaye waaye de xam naa ne am nañ euh, mun nañoo am doole boo xam ne boo xam ne dinañ ne nii nga ko defee soo ko jëndee ba pare. boroom kër bu ko neexee mu jaay këram waaye borom kër bu jaayee këram ki ko jënd foog mu egsi ci yéen bu egsee ci yéen condition bi ngeen tëral is very good su màng seen amee ci suuf dëkkuwaay am ci kaw. dëkkuwaay boobu mooy tax bànjul ci boppam am taar nit ñi di ñëw walla nit ñi di fanaan di eew nga dellooti ci teg leneen arène yi fi newoon yëpp pour bore bu fi magasin ni ñi kuy seetaan marsandiis du dem xam nga pour ñu ne capital la kenn mënu koo dindi ci capital kenn mënu la tax Gambie wéet walla mu wécceeku waaye man dama foog ne xam nga yow sa kër bàyyi nga fa te toog ni kër bàyyi ma fa man suma kër fi suma kër bàyyi a ngi fi loolu ndam lu rëy la Banjul dafa di dëkki cosaan te mu gën a foor gën a nekk dëkki cosaan fi mu nekk leneen li nga xam ne it euh, moom laa bugga ñu gën ci waxtaan ci mbir yi euh, aj foog naa ñi si nekkoon léegi tuddaatut aj 22 de foog naa aj bi rek lañ ko ooyee Banjul aj that's very nice Banjul aj tur wu neexangoo ko am na ci loo xam ne mun ngi fa foyokaay la boo xam ne dafa war a développe war naa mun a am samedi weekend wala friday saturday ba sunday weekend am na ñoo xam ne ñu fa am bar and restaurant si correct Eh, muy foog naa timeless foofu naka ngeen gisee yëngu-yëngoom ak développement am ba nga xam ne dina gën a fort nit ñi dëkk Kombo am samedi am dimanche am samedi am dimanche ñuy ñëw di yëngu si boor yooyu di gën a dekkali Banjul ca cosaan gam nekkoon. jërëjëf Alaaji Efri li nga wax ak li nga mbébét kon ni ma ko njëkkee wax rek li yóbbu Banjul kanam la. parce que yow dafa mel ni daga nekk suñ xel yi ko suggestion yi nga joxe nii xalaatu rafet yi nga joxe nii waxuñ ne exactly li nga wax moom loolu lañ wax ak loolu lañ xalaat waaye ñu ngi xalaat lu mel noonu mooy ne Banjul ñun liñ xamoon ak li ñoo nekk xaleel yëpp dañ daan daje daga dajee paak wala ngeen daje juma wala ngeen daje si foyekaay yi ñu naan taati paak ñun li ñoo nekk xalel yëpp loolu fekkee nañ ko jamono di dox am na suñ ne woon zimba ñu ne taati paak la suñ ne football ñu ne si paak ba KG5 suñ ne jumaa ñu ne mooy juma euh, koreen wala juma bu mag bi fii Banjul développement di dox ba jumaa yi bari rafetlu nañ torop loolu waaye man dama ko dee wax toujours balaa ma doon am place bi ne gija gisee giñ dee gija gisee yëpp li développement yu bari la juma yi bari soo ko bàyyi xel léegi bànjul korité tobaski rek lañ dee dajee ñun waa Banjul yëpp tugee da euh, te loolu waa bànjul ku dëkk Kombo euh, ñaareel fu ko tobaski fekk si Gambie bi fii wala korité Banjul laa ñëw yooyu woon values si ak cosaan yeeg aada yoo xam ne mu ngi woon pir suñ fii bi nga xam foofu leen daan daje li nga wax si aaj bi nag waaw jamono ji aaj bi leen tombé parce que ñun duñ daan foye si aaj bi booba aj bi léegi nag daa gis ne fa xale yi daan gën a foye ñun ñaareel suñ daan foye suñ su fekkaan feet amoon na ñun dañ daan dem cinéma wala ñu demaan si matinée mooy cinéma bi daan am. man Euh, Banjul cinéma yóbbu nañ ma fa dañ ma yóbbu Banjul cinéma waaye Odeon yóbbu naa fa suma boppa Banjul euh, néew na dañ ma fa yóbbu suñ la fa yóbbu te julli tobaske korité yëpp cinéma daf daan am loolu lu neexoon la waaw euh, tobaske korité loolu lañ daan féetee Banjul dem cinéma. waaw waaw. soo waxee lu àgga si boori Ali 76 rek bokkuma. <laughs> man da ngaa waa si late seventies yi di ñëw si eighties yi di di nga gën a xuus si loolu waaye jox naa la gis nga cuun naa la jox naa la idea of li daan xew tobaski su amoon ak korité bi ko léegi su tobaski amee ak korité xale yëpp si aaj bi leen daan dem ñu suñ time xale lañ daan dem cinéma su jógee foofu ñu daan fu ñoo dem Oasis ñu dem Oasis dem ah, dem afternoon jom afternoon jom lañ daan dem ñun bañ nekki xaleel mag yaa daan dem eh, evening jom bi waaw waaye li nga wax ni lu soxal suma boos la suma meeyo bi di Rohey Malick loo soo ko bàyyee xel ñu ñoo wax euh, Revolution dañ dee am programme boo xam ne chaque we euh, tobas tobaski la korite waaw ñuy wax ñu ko Feed the Kids Feed the Kids boobu dugal na ci alelam dugal na ci dooleem dugal na ci xelaatam te teewee na bu mujjee nii balaa ngeen ma interview ni moy korité bi passé ni mom lu ko ñor moy jigéen ñak xalé yi lolu ñor nako torop pour xalé ni ño xaleel jang su wara a su foré foye mu fo su xaleel foyu rek dina am problème té xale dafa wara fo lolu li nga wax ni suma meyo itel nako ko torop ñu ko bu bahaba ba té te bi nekk si aaj bi mu ngi sé dugal alélam mu ngi gëna xalaat foye kai ni ño gëna baré bare bir banjul ak bitch bi nuñ ko gën a dekkilee pour waa Banjul di si gis seen boppa am nañ bij bu gën a yaatu léegi si bij yëpp ko suñ bij bi ni mel nii benn bij gënu koo yaatu léegi si si réew mi ko defaraat nañ ko waaye li ñoo li ñoo defee pour waa Banjul di si ñëw ñu ngi koo xalaat ñu ngi koo lijjanti dafa toogangut bu baax rek waaye xalaat na loolu ni Banjul ñu ngi ko soxalee jërëjëf. Eh, fàttali nga ma fu mel ni fii. Cinema Bride nekkoon xam nga ñetti pàcc la ndax suñ ne fi Gerald Street xam nga danga ñëw Dingara Boy Pordas nga jàll Allen Street boobu nga egsi noonu boo egsee am na fi ñu wax fi Gerald Street Bride moo dox seen diggante boo déggee ñu naan raay mbaam dafa amoon benn euh, oto saxaar bu daan eb marchandise bu daan indi marchandise foofu foofu lañ tuddee woon raay mbaam nga puus tuuti nag fi jaara la yow cinéma yooyu la fekku la fi cinéma yu amoon solo lañ biir Banjul meew nag euh, xalel la mag la am na xalaat bu rafet pour réew mi tey li wax dëggaa neex yàlla mun na ne mooy the first lady bi Elif Banjul niñ ko waxee nag yàlla nim ko tuddee noonu la rafetee what goes around comes around bàyyam newoon na fi meew ci réew mi kon meew boo xam ne itam ku amoon jom ku yóbbu Gambia ba tey booy koof ci marché bànjul fu la neex boo tegee sa tànk Malick Lo moo ko fa def roxe dina ca egg eh, bugg nag fi mu nekk yenn xalaat ngeen am ci ndongo yi pour ñu mun a dem ci géej gi et tuuti di jéem di indi pour yëf yi oyof ndax bu amee korite kenn du fi ne bu amee tobaski kenn du fi de te nit nit la rek ki dugga noonu ci géej gi di dem di tobaski ji nit la su fekkee ne am nañ ko ko def fii bu fanaanee bu setee jën mun naa am ma laaj boobu itam yenn xalaat ngeen ci am. si laaj bi ma laaj parce Euh, ñëpp xam nañ ne Banjul ñun amuñ tool ñun soole ñu ne back to the land ñun dag ñoo ne back go to the sea ñun géej gi lañ am ñun island lañ dëkka loolu dinañ si rafetlu torop te gis nañ ne bari na ndongo yoo xam ne ñoom si géej gi lañoo ñoo yëngatu waaye niñ ko gën a mun a euh, yokkee pour ndongo yi gën a mun a am liggéey parce que ndongo yi loolu lañ mun ak loolu lañ bugga mooy si géej gi loolu ñu ngi see waxtaan ak ñu bari ñoo xam ne ñoom walla boobu lañ eh, fànna boobu lañ nekkee especially ministre bi si am ñu ngi waxtaan ak moom bu baax man de balaa maa nekk si position bi sax mus naa see waxtaan ak moom moom James Gomez si office am mu ngi wax ne ñu ngi gën a yaatal mbiri géej gi. pour ndongo Banjul yi ñu gën cee gis seen boppa parce que loolu lañ mun a dimbalee ndongo Banjul pour employment man loolu de dégg naa ko ci kàddoom si office am su su su eh, su ko mun a su ko munee fàttale ko loolu moom ñu ngi si kawam baax a baax pour ndongo yi dem si géej gi ñu yokkal leen mbiri jërëjëf ku ñoo wax yaaya dinaa profité waale ku ñoo yaaya kuyaate di suñ coordinateur ñun mooy youth coordinator bu United Democratic Party bu Banjul silo ci loolu la yëngatu mom ay mun na la ñaar fukki at ak dara legi mu ci si gi moom gi ci lu bari selina fu si africa fi ak ci Europe so ñun pour Geji mom moom toujours dañ ko campagner ñu dañ ko campagner sa so dina dinañ content trop yow si sa te bo si wawahi yi ne dinañ ci def dara incha allah jërëjëf. ah kon mbokk yi yaakaar naa pour jërëjëf ñu wax ne meew Banjul Fatou Malick Lo mu Guèye Lo mu Lat Kumba Lo mu si la Maram si la ak si la borom jàll bi ci base yàlla denk ko Gambia muy ko am yar ko am teg yi ni di ku déggal yàlla na ko yàlla dimbale ba fi mu bugg a yóbbu réew mi mu yóbbu ko fa di leen gërëm yéen di leen sant. ba beneen jamono bu ñu yàlla dimbalee ñu ñëw toog jataay bu gën a am solo jataay bi waxtaan lu bari ci diaspora bi nag àddina ak li leen wër yëpp ak ñoo déglu beneen dinañ ñëw ci yeneeni waxtaan jërëjëf Mr Touré jërëjëf maire jërëjëf mbooloo mu fi teew thank you very much mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin again gannaaw bu ñu demee ci ay place ci biir Banjul wax li indi tur ñoo wax Independence Drive balaa ñoo wax Independence Drive mu tuddoon Clifton Road ñu wane koñ bi wañe yi nekkoon ci boori koñ bi yëpp ci Banjul ba jaar DCC ñëw fekk ki nga xam ne moo di CEO ba de Moustapha Bathily ak itam député meew bi ñu am waxtaan ak ñoom ñëw nag ci fi nga xam ne mooy fi ñu daan wax bàmmeli Brown bàmmeli Brown tey tubaab bi biñ fi nee ci colonial days aftu boo xamee ne xare bi jeex na ñu sëlmal boti nit ñi ne dafa amoon ay tubaab yoo xam ne dañu jiitu woon waaye suuluñ leen ci seeni dëkk ñu ngi leen suul ci Gambia fii defaral leen ay daay su rafet binde seen tur ne tubaab yooyu fii lañu des am nañ at yu bari nag ñu ko celebrate ndeke woo li ñoo celebrate yëpp ay daayis rek la suuluñ fa kenn jamono di dox di dem di dem gannaaw nga xam ne yaa jàmme jël nañ nguur gi ci loxo jawara mu ñëw nag boole benn liggéey ci biir fii seet fii daal te moom daal fii la bugga def aj bi ak entire seen council bi ñu laaj lu bari ndax fii dañ fi suul tubaab am ñu bari ñu leen wax ne suuluñ fi benn tubaab loolu nag waxtaan nañ ci tubaab yi Angleterre yi ak yooyu leen xam ne suñ dëkk la ñoo ko moom suñ ci bëggee yëngatu coowee bari rek waaye suñ dëkk la tubaab yi d'accord ak ñun ñu buddi daay si yëpp sagar sax wala luñ suut bu màgget newu fa ñu jël nag fi jël contrat bi jox les copains muy benn contract bu mag ci Sénégal contract boobu mooy Père Koudia bi mu jël plan ba jox Amadou Samba contrat ñu liggéey aj bi aj bi sax bari na doom aadama yu bari ci seen bakken des waaye Amadou moo ci ñàkk xaalisam bu bari boo xam ne moom la dimbalee kilifa yooya nekk Sénégal bi ñoo yóbbu niiw yi man mii bokkoon naa ca gannaaw bu aj bi paree fii nekk place boo xam ne nguur gi samput lii dafa am ay businessman amoon na ku ñoo wax Mr Touré nekkoon na fi laata Mr Touré jóg fi nag man la fi Touré te borom timeless ñëw développe fii développe bu rëy moom man la fi def na fi lu bari développe ko ba nga xam ne soo buggee sa ndéwo wala sa lekk gu neex boo ñëwee timeless fii di fi fekk wokk si fekk seen general manager di Binta Touré ñu liggéey fi liggéey bu rafet fi mu jàkkaarloo nag ni pavillon bi nekk nii tey foofu pavillon bi moo iir kër Alhaji Daouda Koor mu bàjjen Koor mu Keba Koor fa Ndefaan ak fa Maakaan alaaji Daawda Koor foofu lañ daan jullee am na benn bés ci history imam Mamadou Lamine Ba ak mag ñi toog ñu ne fi ñoo jullee nii yaatuwul dañoo jël jullee woo kaay ba dem ca Makati Square alaaji Daawda Koor ne du dem Makati Square fi julli cosaan nekkoon ak aada fi jullee keroog bés booba ñii dem Makati Square am ñu bari ñu des fii ñu daan jullee ci jullik cosaan man mii ci laa bokkoon fii laa jullee loolu yëpp nettali la rek pour wane ne mag mu baax la woon ko amee woon miskin ci réew mi mag mu baax moo xam ne bu gan musaana wàcc ci réew réewi Gambia bu faatoo alaaji Daawda Koor moo lay toppatoo ci alelam moo lay sàng suul la muy bàyyi ñoom boy koor bàyyi ñoom asis koor bàyyi ñoom laay koor bàyyi ñoom bin koor Ousseynoog Assane koor waaw fii nag dafa nekk area boo xam ne area bu ñëpp war a mun a fàttaliku la fii cosaan la ci digg Banjul moom këram ma ngi woon ci gannaaw waaye tey aj bi seetal ni mu rafetee oto yaa ngay jaar ci roon aj bi jamono boobu nga amoon fa GPM bii foo xam ne managing director ba Alhaji Kaba Diallo moo ko managé woon moo nekk ci gannaaw tey fi NIA nekk xaw ma what's the name again euh, waaw foog naa mooy NIA nga amoon ci booram ay kër yoo xam ne ñu ngi fa dëkkoon tey fi Fisheries nekk ak yeneeni boor yëpp Atlantic Hotel nekk ci gannaaw waaye jamono dem na nag ba tey àll bi yëpp lu bari ñu ngi ko fee développé waaye fii pour mu leer nit ñi ne suuluñ fi tubaab déedéet tubaab newu fi woon kon ki nga xam ne dañu jógee office am rek ak député am mu di député maire bi di Mr Touré mu wax ñu wax ju rafet CEO bi wax ñu rafet Mr Ndiaye wax ñu lu rafet ci Banjul kon aj bi ngeen gis nii am na yeneen ak yeneen ci biir Banjul waaye bugg nañ balaa ñoo dem fii ngaa gis nii booba dara neew fii ñu ne sëñ Maska doxantu na fi ak Cheikh Omar Foutiyou Tall ko di Adama ay seta Mokhtar Siré Ali sëñ Touba bam ko gane see itam jaar naag moom fii ak góor gi Mambéry Sofi waaye balaa di lépp fii la gétti Mayoro Seck gi nekkoon déglu leen olof bi de balaa dara di dara fii la gétti Mayoro Seck gi nekkoon Serigne Touba ñëw na fekk moom dellu nañu continuer dem toog fi nga xam ne fi la House of Parliament bu ees nekk waxtaan ca déy googu jógee fa dem ci guy tegal toog fa waxtaan def seeni ñaan yëpp dégg naa ci kàddu bay kilifa yu baax yi ñu ne góor gu baax gi ne fii day bàmmeli nasaraan la dooni ëllëg waaye ca kanam bàmmeli sëriñ sëriñ sa dinañ fa mun a suul seeni nit waaye dina ñàkk toppatoo ba moom moytuwul ndox yóbbu ko dina ami jamono ndox mi dina ñëwaat wala dinañ ko liggéey ba mu toll ci jamono bi mu toobalee nag nguur yaay jàmme loolu yëpp am na fi waaye su ko defee fii tey place baa ngi développe muy timeless Binta Touré Binta Touré raka ci man la fi Touré ñu ngi développé lu rëy ñoom itam ci boor bi wane na fii ci Banjul di Gambia fi ñu juddoo la kon mbokk yaakaar naa yeneen yi ci des dinaa leen ko wan uh, lu am solo la jërëjëf. mbokk yi gannaaw bu ñu defee suñ yenn programme yu bari ci biir Banjul. ñëw nañ ci fi nga xam ne fii moom la ñoo wax guy tegal di leen wan liy woon njëriñam ci réew mi mu nekkoon guy gu mag am meññeef bu rëy moom guy tegal ci taay mi xaleel boo fi daan romba yooyu yëfi xaleel la woon dang wengalu am loo jël ñëw teg ko fi su ko defee boo demee fi nga daan dem ci taay mi xaleel uti cakam cooli walla ndengs wala ditax wala ñaama tonton sooy wañeeku si nga ñëw ne ko guy tegal jël naa li ma fi bàyyi woon muy cosaan boo xam ne cosaan bu rëy la piir Banjul lii dañ ko waroon a fens clôture ko fàttaliku démba ci cosaani mag ñi nga xam ne jaar nañ fi def nañ fi loo xam ne lii lu ñëpp mun a nettali la waaye koone guy tegal mu am lum la wax rek fàttaliku dara lenn lu bare ngay raaf ci réew mi ndig ñàkk toppatoo am na yenn yoo xam ne yi mun naa nekk fàttale ko ci cosaani àddina guy tegal gi dayu doon nii dog na ba jeex takk mu ngi meññeekuwaat nag ndax mu ngi amaat luy jóg ci kaw ndax nguur gi mun na ko bàyyi xel wala kansul bi mun na ko bàyyi xel mu nekk loo xam ne buñ ko toppatoowoon mu dellu fam mu woon bu fa delluwutam muy màndarga di fàttale ko boo xam ne bii démbale woon ci réew mi kon bokk yéen ñi xamut guy tegal guy tegal a ngi sooy romba di dem komba boobu jamono tali yi la nii la naa da ngaa dingalu wengalu def sa baat bi nii am loo fi teg continuer yooyu yëfi xaleel la woon waaye nag rafetoon na pour niñ ko nettalee tey mu neex kon yéen waa Gambie yéen waa Banjul guy tegal a ngi nii jërëjëf. ba tey ñu ngi wane loo xam ne lii lu am solo la lu fi nekkoon demb ci cosaan euh, gannaaw boo gisee ñu wan leen ci bàmmeel ya fële wan leen bàmmeeli kercen yi tuuti wan leen itam ci bàmmeel yi nga xam ne ñoo fi newoon ci jamono boo xam ne boobu euh, ndox mi daanaka mu ngi bugg a yóbbu yi fi newoon ñu bari euh, ñëw nañ ba nga xam ne. am ñu bari ñu fi jël seeni niw sulli leen eh, yóbbu leen ah, ndeysaan yóbbu leen joswang am ñoo xam ne ba tey itam seeni néew ñu ngi fi des waaye am naa ne dinañ ko ñaan suñu meew bu am yar bi yëpp ñu seet ko ñu toppatoo ko defar ko ba mu jekk ay kilifa ñoo fi tëdd te lu bari demoon na ba ci kanam lii nga gis nii yëpp ay niiwa fi daan tëdd waaye géej gi def daan fees eh, tey soo ko seetloo kilifa yu baax man fii la suma ndey tëdd suma ndeyit ah fi la baayam tëdd baayam di Burama Jabaate ñoom góor gi Cerno Adama Ba kalifa yu tedd yu baax suñ demee ba ca kanam ci gannaaw uh, radio wan ci tatu foofu ñu daa ci tatu kalifa yu bari boor yooyu la lañ tedd kalifa yu baax Banjul ci fi nga xam ne moom lañ daan wax taati pere Banjul te dëj yi ak suul yépp daan am fii muy ako muy lu mun a doon néeg bi ngeen a gis nii nag ah xaw daan nañ fi am ay ñaanooka yoo xam ne kerseen yi dañ ko saxo woon daan fi ñëw every Sunday I don't know every Saturday eh, daan nañ fi ñëw nag lu bari su ko defee seeni ñaan ak seeni farga xooxe fii lañ ko daan def nga gis nag néeg bi nekkoon scout building boo xam ne moo fi nekkoon nekk place boo xam ne place yii yépp dafa nekkoon ay place yoo xam ne place yu daan jëriñ xale yi la ci seen foyokaay wala ci seen yeneen yuñ daan def ah, tey nag nga seet ñu ngi Banjul I am ne ki nga xam ne moo élif Banjul di meew bu jigéen bi dina am benn too boo xam ne dina ko def mu ñëw gis li nga xam ne lii ci goxam la bokk te ku ko développe mu nekk développement boo xam ne dina jëriñ te dina baax euh, ci biir loolu fii yëpp ngaa gis ni area woon area boo xam ne place fi woon Euh, gannaaw boo xamee ne ciitatu génn na gaal gi ñëw fii la amoon ci place place bi mu amoon fi place la boo xam ne euh, xale yi dañ fi daan def fa bu nekk fii lañ daan spendé seen time not saturday not friday euh, saturday sunday ñu daan ñëw fii boobu Super Eagles wala African Jazz o Fambondi ñu ngi daan tëgga tëgga yu neex fii ñun ñëpp ñu dog ñëw fi nga xam ne mooy ci tëtu ah wala bu ñëwaan fii lu nekk moo fi daan am eh, kër gi nag fii yaakaar naa ne ñoom Mr Foster xaw ma naka lañ xeeti akurañ ñoo moom fii waaye boo jàllee ci gannaaw radio moo nekk ci kanam foofu radio nekk noonu nag nekk na foo xam ne Eh, foog naa Birame mu fa dëkk ba waaw lii yëpp mu ci Gambia lii yëpp ñoo ko moom buñ ko téye àll développement la ni fi kii mun a dëkkee ba mun fee eewoo su fekkee ne amuñ benn soxla te géej gi du ko yóbbu mun nañoo wax ne dara mun na fee xappun mun nañ fee def liggéeyukaay mun nañ fee def lu ne ci biir fii léegi nag eh, fii nga gis nii yëpp ci gannaawam ay bàmmeel lañ woo bàmmeeli ay kilifa yu tëdd yu tedd fii bàmmeeli kilifa yoo xam ne afisul quran lañu alim lañu ci réew mi ay kilifa yoo xam ne def nañ fii teraanga yu nekk ci biir Gambia waaye tey mu ngi maasaale eh, ndax ñun waa gàmbi yëpp du yëpp ngaa mun a topp dañ koo bàyyee BCC déedéet doom yi fi nekk doon doom yoo xam ne doom yu am njëriñ lañ doomi seen bàyyi fi bàyyi def fi lu nekk te ñu leen fii mu mel ni tey place la rek bu ne mbaras ah, wax dëgg moo neex yàlla ñu seetaat suñu boppa seetaat suñu liggéey seetaat ñu naka la suñ kilifa yi tëddee woon ci tëdd bu rafet ñu jël tëddin boobu ànd ci tëddin bu rafet boobu def li nga xam ne moom la mag yi daan def fii yëpp bàmmeel la woon. all right, all right, let's go. I listen to Gambian Times radio show. School is over. Go home.